Amady Kenya ñu taxaw moom mu duggoon sëñ Amadou Mokhtar siyaare ko si bis bu màgg bi nga xam ne ne moom na ñu fàttali ko Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul sëriñ Mouhamadou Moustapha taxawee ko ñu bëggoon ay kàddu yoo xam ne rek dañ ko yëkkati jëmale ko si bis bu tedd bi. waaw euh, ñu ngi sant yàlla bu te di am mbégte ñu sunu boroom defal nu mooy ñu fekkee bés bu rëy bi ndax bés bi la Serigne Touba ñibbi si Touba. te sëñ Moudou Moustapha defe ka ni mu ko bëggee woon te jamono jooju nekkoon na lu jafe ndax tubaab yi dañu ragaloon épidémie ba daanu nangu kuy jël di def transfert de corps waaye sëñ Touba yàlla defal ko li mu bëgg moo doon ñibbisi Touba. bés bi nag képp koo xam ni dangay wax ashhadu an laa ilaaha illallah waxuma murid yi wax nañ ko màggal ndax kat ndamu sëriñ tubaa la ndamu lislaam bi la si colonialiste bi gouverneur bi nga xam ni moo nangu sëñ tubaa ñëw fii si tubaa xamul tax lu tax mu nangu ko ba bés bii di bésu yiw ak bésu xéewal boo xam ni ku nekk fii ci Sénégal war nga mën bàyyi soxla yëpp ñëw rawatina sooy taalibe foo nekkul Sénégal foo nekk fi nekk war nga màggal bés bi wàccelu alxuraan julli ci yonent bi def ay salaatu ala yu bari def ay istifaar yu bari jox ko àddiya Bamba ndax ku ko def ku nekk sa fay dana kawe lool bés bi bés bu am solo la ndax bés bi c'est le sëñ di dem di nangu ji payam te payam de li benn kilifa wax ni malaan la boo xam ni ndab loo xam ni dañ ko muur àddina li fee ñëw si xewal toq ay toq la sa ndab loolu ndab loolu koroog yow ma xiyaamati rek la noo xam nañ la topp kon yàlla nañ si yàlla sédd yàlla nañu yàlla fayal sëñ Modou Moustapha mi nga xam ni mooy taaw bi mat taaw mu jël Cheikh Mat Bamba indi ko fii gannaawam sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëñ Mbacke Madina di ko yëkkati ba sëñ Ahmadou Makhtar mii sëñ Ahmadou Makhtar yàlla na fi yàgg tëbéer ñu ngi koy ñaanal bu baax tànk yi nag tànku taalibe la taalibe goo xam ne day ñëw fu mu toll di yeesal taalibeem di lees yeesal laxasaayam fas yéene biir dundam mu doon taalibe li noo jeexale kàddu gi rek mooy ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool te wér Cheikh Mountakha ndamu Serigne Touba la si àddina bi yépp àddina bi yëpp ñu ngi daw si di wut si Touba te na jamono joo xam ne de wax dëgg yàlla neneen lañ doon tudd yoonu murit waaye tey àddina bi yëpp nangul nañ ni jullit ak xam nañu addina bi yëpp nangul nañ ni fii bërëbu xam-xam la addina bi yëpp nangul nañ ni fii alquraanu karim bi nga xam ni mooy waxu sunu boroom fii la dëkk ndax bés bi nekk xale bu tuuti dem bitim réew indi fi ndam lu kawe kon nag alhamdulilahi rabbil alamin nanu sant bi nu sunu borom defee ñu doon ay taalibe jërëjëf